situation ndoxu Touba bi nag euh, soxal nañu trop temps yi euh, dafa am ñetti forage yoo xamante ni dañ fa panne pannu euh, pompe looloo waral mu am stress hydrique mais ci loolu état du Sénégal taxaw na jaarale ko ci OFOR commandé nañ pompe yi incha allah pompe yi léegi dina ñëw mais loolu aussi pour expliquer ne gestion ndox bi dafa am pàcc bu nekk dafa am loo ci gérer. nekkul ne nag damay chargé waa su may xarit waa maaw raxmati mais waroon na ñoom aussi benn wala ñaari pompe suñ paane ñu mun cee def pour mun ko ñu mun ko réparer mais ñu ngi toog di waxtaan maire au moment où l'on parle woote na réunion boo xamee ne partie prenante yëpp mu ngi leen di convoqué na leen pour ñu seet rapidement naka la ñu régler problème mais may may may may yëgal rek population Touba nañ xam ne ndox bi préoccupation la ci état bi te incha allah dinañ xam ne état am na pas bi am na taxawaay bi pour régler question boobu di d'une manière définitive